asalaamaaleykum mbokk yi Boubacar Jarale si kàddu gi video bi nag maa ngi ko jagleel président Macky Sall ak gouvernement am jërëjëf son excellence le président de la république yi ak sa gouvernement président ñun ndaw réew mi ñeme nañ la président Macky Sall ñun ndaw réew mi fonk nañ la président Macky Sall ñun ndaw réew mi suñu xel dafa dal ci yow ndax fonkal nga ñu suñuy kilifa diine investir nga si biir réew mi jàppale nga askan bi sa politique rafet na dafa nekk politique de développement président Macky Sall ngay liggéey lu bëri di wax lu néew looloo jaral ñun njaw réew mi su ñenn ñuy jógee dem jox seeni nit ñuy dugg ci rajo yi di wax pour manipuler askan bi tar réew mi ñun ñu jënd suñuy crédit suñu alalu bopp dugg défendre sa politique de développement yaa sa gouvernement si dal na ak si tey ndax noonu nga ñuy jàngal si kàddu gu rafet président Macky Sall monde bi yëpp amoon na fi jafe-jafe si Covid 19 président Macky Sall nga def si lu am solo man Boubacar Diarra Alaaji Assane xam na ma suba teel gu nekk ma jënd samay crédit bokk suñuy fësal seen politique de développement bokk suñuy fësal yitte ak liggéey bu nga xamante ne yaa ngi koy def si sant bi ngir Covid 19 bi bañ a lor askan wi kon président Macky Sall ñun say njaboot lañu bokk duñu la mere ndax kenn du mere waajuram fonk nañ la gëm nañ la jërëjëf son excellence le président de la république El Hadj Macky sa gouvernement. gis la nag yombul ndax da ngaa jaboote waaye président ñun de am nañu kàddu goo xamante ne suñ la gisoon wala ñu gis ñu la jege dinañ toog waxtaan ak ñoom parce réew mi yaa ngi defal te deux yaay rek sunu candidat ndax dañaa am si yow mu dal. dañaa am si yow yaakaar dañaa am si yow gis-gis ku rafet asalaamaaleykum wa rahmatullah